bu tolloo ci weer wii di weeru tamxarit dafa bari lool loo xam ne dinañ ko ci fàttaliku mu bokk nag ci fàttaliku yi gën a rëy mooy ñibbisu ku tedd gi cheikhul xadim radiallahu anhu tuuba mu doon loo xam ne waxtu wuñ ci tollee dinañu koy gën a fàttaliku ndax ci weer wii la amee woon mu doon waxtu yoo xam ne kon danañ ci war di delluwaat di barkeelu ci dund ku tedd gi Cheikhul Xadim radiyallahu anhu waaye dund goo xam ne boroom da ko jeexal ci liggéeyal yàlla jeexal ko ci jaamu yàlla jeexal ko ci jariñ mbindéef yi dund la gu yaatu goo xam ne ku koy fàttaliku doo xam wet goo cay fàttaliku ndax dangay fàttaliku wetu nekk gim nekk nitu suñu boroom ku jeex tàkk di xutbu xii di bokk ci awliyaullahi yu mag yi wala dangay fàttaliku ni nga xam ne ni la jëmmale woon jikko yu rafet yi jikko yu baax yi yi nga xam ne waxtu wu nekk àdduna dañ koy soxla muy ay valeur yoo xam ne àdduna mënu koo ñàkk ngir dunduk doomu aadama ci kaw suuf jag nga xam ne dundam gépp loolu la jëmmal wala dangay ngay fàttaliku jihaad juréy ji nga xam ne jihaad na ko ngir saxal ak dundal pas-pasub lislaam dundal sunnas muhammad sallallahu alayhi wa yee salaat diine lépp lu ci nekk rek lu yaatoo yaatu la wala njàngale mi nga xam ne bàyyi na ko fi àdduna bépp man cee jariñu ba keroo bis sëriñ bi boo ko xoolee bu baax xool wàll gi nga xam ne dañ ciy wane ni mu jeexe ci suñu boroom ni mu bokke ci xëj ji suñu boroom yi subhaanahu wa taala nga xam ne dundam gépp kaawteef la ci kaawteef yi suñu boroom xuus ci suñu boroom ba suñu boroom may ko loo xam ne xel mënu koo xalam nga xam ne dañ koy boole rekk ci kawte suñu boroom yi ni ko seex siidiya radiallahu waxewoon innama sheyxu nicmatun anama anama allahu biha aayatun min al aayaati sëriñ bi daal xéewal la rek goo xam ne suñu boroom da ko xéewale jaam ñi waaye mu bokk ci kaawteefi yàlla yi alcheikhu ahmadu nicmatun awlaaha haasi l xalaaiqa kullaha mawlaaha loolu kon dangay gis ne dundug sëriñ bi kiimtaan la ci kiimtaani suñu boroom yi la mu bokk ci xejj suñu boroom yi nga xam ne ci xadiisul qudsi suñu boroom dafa wax ne képp koo xam ne noonoo nga ak ñoom man yàlla man nga dëkk man ngay léwtool ca wax ko ca xadiisul qudsi bi imaamul buxaari nettali man aada li waliyan faqad aazantuhu bil xarb loole moo tax sëriñ bi am fu mu koy wax ne képp koo xam ne yaa ngi léwtoog man yaa ngi mel ni kuy léwtoog suñu boroom mi nga xam ne mooy boroom kàttan moom mi nga xam ne moo mën a fayu biraazu man baariza nii biraazu man yu baarizul muntaqimal baariza man kon wàllu googu wàllu gu yaatu la goo xam ne ah kuy fàttaliku dangay doo xam foo cay mën a tàmbulee ak foo cay mën a yem waaye boo xoolee geneen wet sëriñ bi lépp loo xam ne lu baax la jikko ju rafet la lépp loo xam ne valeur la ju doomu aadama yi soxla tey sëriñ bi jëmmal na ko ci ak dundam boo xoolee pas-pas gëm yàlla nim ci meloon nga xool yërëm mbindeef yi nim ci meloon yéene leen aw yiw nim ci meloon bëggal leen jàmm nim ci meloon boo ko doon lim du jeex gëm yàlla nga xam ne dundam gépp da caa feeñ jéego bum mu séqi nga gis ca ak wóoloom suñu boroom gëmam suñu boroom ak doyloom suñu boroom ak wéetal suñu boroom ba mu jógee ba niñ ko noppee gis ci kaw suuf musta wàcc yoon woowu nga xam ne ci njëlbeen ga la biraloon ne ci la jaar qaalu li yarkan abwaabi salaatini taxus jawaaiza tuxni kullama xiini la ma waxoon tontu rek fa qultu xasbi rabbi waktafaytu bihi wala suraadiya xayral ilmi wa diini loola musu caa wàcc bañ ko bañ noppee gis bañ ko noppee gis waaye noonu la meloon ci yéene aw yiw bëggal nit ñi lu baax yéene leen jariñ dundam gépp nekkoon njariñul mbindeef yi bokk ci ñi nga xam ne dañuy soppe suñu boroom ca yàlla dafa waxoon ne jaam yi ñooy njabootuk suñu boroom ci ka yàlla gën a sopp ci jaam yi mooy ka ëppal njariñ mbindeef yi ci sëriñ bi àggoon na ci di wax ne ijaal xayaati nafa ahli zamani wa gayrahum waliyakun bi amani di ñaan suñu boroom dundam gépp nekk njariñul àdduna bi njariñul mbindeef yi الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

على السلام wàllu yooyu yépp boo ko boolee day mel ne suñu boroom subhanahu wa da ko cee waajal ngir mu jooxe liggéey bu rëy bi mu doon liggéey ci yeesal diine ci jubbanti waat xeetu muhammad sallallahu alayhi wa sallam wanaat leen yoonu yonent bi alayhi salaatu ak sunnaam yeesal sunnaam dundalaat ko nga xam ne la ko taxoon a jóg te wax ko ci barab yu bari mooy dama yéene yeesal sunnas muhammad sallallahu alayhi wa sallam lil mustafa nawaytu maa yujaddidu sunnatahu lgarra wa inni ahmadu loolee nag nga xam ne yitte ju rëy la yoo xam ne àgg na ci foo xam ne mën nañ ne kenn mosu faa àgg ci jeex ci liggéeyal yàlla jeex ci dundal diine jeex ci dundal sunnas muhammad sallallahu alayhi wa mu dundalaat pas-pas yi dundalaat lislaam dundalaat lixsaan xeet xaaji diine yépp bu ci nekk mu jëmmal ko jàngale ko ci anam nga ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam doon jàngale bàyyi fi am njàngale mu yaatu moo xam ne bu ci jullit ñi jaaree faw ñu am texek àdduna ak texek àllaaxira njàngale yooyee xutba bi nga xam ne moom la mujj a def bu am solo la boo xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam na mu taxawe woon ca xajjatul wadaa ba muy tàggutoo xud xutba bu yaatu ba mu defoon ëmb lu baree bari ba noppi mu ne ku fi ku teew na jotal ku teewut sëriñ bi it bi nga xamee ne xam na ne day ñibbisi Tuubaa day wuy boroomam xutba bu mel noonu la def sëriñ Mouhamad Lamine jóob indi xutba ba ndax moo ko teewe woon teewe woon na ko muy xutbatu wam sosin di xutba boo xam ne kon jullit yépp ci la jëm jullit yépp a ko war di teewlu jullit yépp a ko war di jàng ndax wax kàddu yi nga xam ne mën nañoo wax ne moom la sëriñ bi mujj jàkkaarloog mbooloo yëkkatiku jëme ko ci ñoom kàddu yooyu mat bàyyi xel la kàddu yooyu sëñ Mat Lamin nee na ci bisu fukki fan ak juróom benn ci di di di gaawu ci weeru muharram mu tam xarit wi ñu nekk ci la sëriñ bi woote ba mu jullee tàkkusaan ba noppi daa laaj ne tey la kañ ci weer wi ñu ne ko tey la fukki fan ak juróom benn mu ne dénk naa leen ngeen dal dalal njaboot gi wàññi dox bi wàññi wëndeelu bi wàññi génn bi lu may lu mënta ñàkk ba ca ndeeteel gàmmu ga daal wax ne dénk naa leen ngeen jaamu yàlla mi nga xam ne moo leen boyal ngir ngeen jaamu ko ndax ña nga xam ne kat moo da a jéng te mooy yéefar yi wala ñi nga xam ne seeni bàkkaar moo leen jëng ñoom day mënuñu koo jaamu ci it buñ ko dee jaamu duñ ko rafetal te ki nga xam ne moo leen xamal li yàlla bëgg ci yéen di ay ndigalam ndigal yi nga xam ne moo leen di yóbbu ba àjjana di leen bégal kooku de àq la ci moom ngeen topp ko ngeen déglu ay ndigalam ndax ngeen texe texe goo xam ne ak texee di du ca topp ak texe di du ànd ak moom àq la ci ki leen ki leen di xamal ay teream tere yi nga xam ne ku ca nekk dalay yóbbu sawara wala yaasu billah di loo xam ne ku ca nekk dalay gàcceel di la jox aw naqar doo ànd ak mbé mbégte kooku àq ci moom ngeen nangu la mu leen indil moytu la mu leen di tere ngir ngeen mucc mucc gu mat sëkk ngir ngeen mën a noppalu noflaay bu mat sëkk mu ne maa ngi leen di dénk ngeen jëmale seen bët ak seeni yitte ci ñaari masala mooy ngeen xam liñ leen digal te di ko def xam liñ leen tere te di ko moytu na ngeen jafandu bu baax a baax ci ñaari masala yooyu ndax nee na mooy xam-xamum ñu njëkk ñi di xam-xamum ñu mujj ñi mooy ci jëfe ko ci la nit di rawe ci jëfe ko ci la nit di gëne ca ca ñu ca ñu njëkk ña ak ñu mujj ñi mu ne na ngeen góor góorlu ci julli juróom ak saraxe ak ñaan ba mu xutbaa xutba boobu nga xam ne moom la def lu jiitu muy julli timis ba mu julli timis ba noppi dafa ba ba ba timis jotee dafa génnaat ba mu jullee ba noppi daa di digal sëñ mat lamin ne ko jàngal tàmbulee njëlbeenug baqara mu jàng auzu billahi min asheytaan rajim jàng ba ci wa ulaika humul muflixuun sëñ bi ne ko taxawal mu taxaw mu ne ko lii mooy melow jullit ñi ñoom dañoo mel ni ay ndab yoo xam ne yu ubbeeku la ca suuf ga bënnut seebu suuf ga dafa fatt ndab yooyu lay dees na ca mën a def ca luñ ca def dina ko wattu dina ko sàmm ne ko yeggaleel mu yeggale ba ci walahum azabun azim mu ne ko taxawal ne ko lii mooy melokaanu yéefar yi ñoom dañoo mel ne ay ndab yoo xam ne dafa ubbu dara munu caa defe mu ne su caa def dara ne ko yeggaleel mu ne wa maa yuxaadicuuna illa anfusahum wa maa yashcuruuna ba mu àggee foofu mu ne ko taxawal mu ne ko lii nag mooy melokaanu naafiq yi ñoom day dañoo mel ne ay ndab yoo xam ne dafa ubbeeku waaye nag dafa bënn ca suuf mënees na caa def waaye luñ ca def du ko sàmm du ko ñoŋal mu teg ca nag ne yuminuuna bi ma unzila ilayk mooy alquran waaye wa maa unzila min mooy la jiitu alxuraan ba ci alquran mu teg ca ne nag ma bi nga xam ne moo nekk ci tudd la jiitu alquran mooy tere lii di parparloo ni nga xamee ne na la ko yahood yi ak nasaraan yi daan defe boobee la daa di walbatiku sëñ ma lamin nee na daa dellusi wut ba julli geegu mujj nee na fajar ja dellusi na nee na ba mu jullee fajar nag julli googu mooy gim mujj a jiite nit ñi noonee la def ba ba ñuy yëg li nga xam ne moo xew muy wuy ji gim wuy ji boroomam kon ñu gis ne dénkaane boobu day dénkaane bu mat a bàyyi xel la ndax sëriñ bi dénkaane lim ci dénkaane nga xam ne moom la mujj a dénkaane nga xam ne bu doon nas xoog naasix man suux am na loolu dañ ne moom kenn mënu koo man suuxal ndax moom la mujj a dénkaane mooy muy digle jaamu yàlla topp yonente bi alayhi salaatu wasalaam ci li mu jotal ci ay tere aki digle xamal ñu ne loole mooy sababu texey texe texe goo xam ne ak texe di du ca du ca topp waaye mu soññ ci ñu yittewoo xam ndigal yi di ko def waaye xam tere yi di ko bàyyi wane ne loolu li xam-xam di yaatu lépp mooy li ci ëpp solo mooy xam-xamu ñu njëkk ña mooy xam-xamu lu mu jili kon nit ki lu mu xam lu mu yaatu yaatu su xamul li ko yàlla digal mu di ko def xamul li ko yàlla tere mu di ko bàyyi day mel ni xamul dara waaye bi mu diglee jaamu yàlla yi yëpp it dafa ber ñett yoo xam ne da leen a tudd kon ñett yooyu mat naa bàyyi xel dafa tudd ngeen farlu bu ngeen dee jaamu yàlla nag na ngeen farlu ci ñett yi mooy julli ngeen farlu ci saraxe ngeen farlu ci ñaan ngeen farlu ci xutba bi nga xam ne da koo def lu jiitu julli gi day mel ne da ca doon dénkaane waaye xaaj bu mujj bi dafa mel ne da ci doon jàngale kon lu mat a bàyyi xel waaye li mujj nag di lu yéeme ndax li wax ne e, xekk ma li mujj génn ci aw làmmiñam mooy tere taassub mooy parparloo parloo mooy fanatisme ak yu demee noonu li tax mu mel ne sëriñ bi xamoon na ne jamono dana dem ba loolu mooy gën a lor doomu aadama jafe-jafe yi àdduna yi dund li ci ëpp mu ngi jóge ci parparloo kon loolu nekk kàddu yi mujj génn jëm ci mbooloo mi njàngale mu réy la moo xam ne yëmul rekk ci taalibe yi waaye àdduna bi la jëm kon àdduna bi la jëm àdduna bi war nañoo dégg loolu ndax jafe-jafe yu ñuy dund tey ci ay xeex lépp mi ngi jóge rek ci farfarloo moo xam ci wàll gu mën a doon kon dañuy dégg ne ci xutba bi rek war nañu Sëriñ Tuubaa lim doon jàngale ci àdduna bépp la jëm kon yàlla na yàlla defal nu dégg ak topp yàlla nañu ko suñu borom subhaanahu wa taala dollee fayal yàlla suñu borom subhaanahu wa sàmmoo kii nga xam ne moo ko fi toogal mu cheikh Mouhamadul Muntaqa ba yéene yépp mu àggale ko wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Allah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 محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله الحمد لله الذي خلق العوالم وزين السماء بالنجوم والأقمار وأضاء بها الأنجال والأغوار وأظهر فضل نبيه وحبيبه صلى الله عليه وسلم على جميع خلقه في جميع ما مضى وما ياتي من الاعصار وصلى وسلم عليه وعلى اله واصحابه اولي الايدي والابصار اما بعد فيا عباد الله من تمسك في كل الأعمال بالكتاب والسنة وحافظ في كل الأحوال على ما فرضه وسنه فقد اتبع هداه ولا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن أمر ربه وأطاع الأمارة بالسوء فقد جفا وتعرض لأسباب السقى ومن حاسب نفسه ووافق الشريعة عمله ودام عليه ولم يخالفها faqad rabiha waalamu anna ma fi laaxirati xayrun wa abqa wa alaykum allaa tazaalu xaa'ifiina wajiliina musfiqiina min xaatimatikum li annaha لكم لأن الخاتمة تتبع السابقة ومن حسنت سابقته سلمت خاتمته جعلنا الله وإياكم ممن سبقت لهم من الله الحسنى آمين الحمد لله الذي خلق العوالم ليريهما لحبيبه صلى الله عليه وسلم من عظيم المقدار وزين به الأكوان وأضاء به الأنجاد والأغوام وأظهر فضله على جميع خلقه فيما مضى وما يأتي من الأحصار نشكره تعالى على ما حبانا به من ذخائر الخيرات ما تكل عن حصره الألسنة والأقلام ونبرأ من حولنا وقوتنا براءة إذعان واستسلام أما بعد يا عباد الله تمسكوا في, في كل الأعمال بالكتاب والسنة وحافظوا في كل الأحوال على ما فرضه وسنه فمن اتبع هداه فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكر ربه وأطاع الأمارة فقد جفا وتعرض لأسباب السخاء fa innahu subhaanahu manna alaykum bi nabiyikum alladi kuntum bihi afdala al umam wa sabaqtum bihi wa in taaxartum man salafa minhum wa taqaddam qaala taala كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وما سوى سبحانه بين المحسن والمسيء يوم الجزاء أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون وفقنا الله لطريقته المثلى وألهمنا وإياكم لتدبر ما عليه من القرآن يتلى يغفر الله لنا ولكم آمين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 sabbih isma rabbika al-a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhraja al-mar'a faja'alahu ghutha'an nahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma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 موسى الله الله أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام la الله asalaamaaleykum. asalaam.